ci aaye gi ñuy aaye marche wala manifester doomi aadama yi fi nekk ya nekk ci bitim réew loolu mënoo ñu ko xajal ñu koy wan. tu as tout compris Aïcha li sénégalais yooyu def à New York. Sénégalais yi nekk États-Unis am nañu jóge sax ay Canada ak yooyu dem a ah, fekke ji eh, parce que duñ ko duñ koy wax mais am na ñoo xam ne ils ont fait des pour dem fekke ji loolu mm. gis nga li ñu def tey les Sénégalais yii ne ci biir réew mi ñii nekk Ziguinchor ñii nekk Kolda ñii nekk Tamba ñii nekk Kédougou ñi nekk Louga ñii nekk Thiès Touba Diourbel Dakar feneen ak feneen Sénégal yi ni fii di yeewoo ci réew mi bu ñu amoon possibilité bu ndaw bu def li Sénégal yi New York yi def dañ koy def mais li nga wax dafa am solo lan lan moo tax sénégalais yooyu def ko dëgg-dëgg li ko jur lu yomb la moo di ne ñi ngi nekk ci réew moo xam ne mars 2021 ba ju ba fi may waxee yow nii mënoo ñi ñaata xale ñoo nekk kaso simplement parce que dañoo génn manifesté munu mhm. yow mënoo koo xam man mënuma koo xam te génn manifesté mooy li gën a banal ci démocratie li gën a banal mhm. ñaata xale Aïcha ñoo nekk kaso heure bii may wax yow te dañoo génn manifester ñaata xale ñoo nekk kaso heure bii may wax ak yow Aïcha te simplement parce que dañoo wax jëmme ci njiitu réew ñu ne leen offense au chef de l'État jàpp tëj. wala poste wala poste bu ñu def ñaata. Euh, doomu Sénégal lañu jàpp parce que dañoo wax ci rajo jamono ji mënoo ko xam ñaata doomu Sénégal Aïcha Diakhaté ñoo faatu ci manifeste diggante mars 2021 ak tey sénégalais yooyu. ak ñi nga xam ne dañu yóbbu am ñoo xam ne et eh, justement am na am na jigéen bu ñu ma ci nettali benn jour da doon dafa am ñun jàppoon ci waa koñam mu am habitude di leen yóbbul ñuy lekk parce que xale yi moom la ñuy fréquenté tout le temps benn jour mu dem ñu ne ko xale yi dañ ko tudd yaa te ñooñu mën nga cee wàññi ñu bare bare ñaata doomu Sénégal ñoo faatu wax naa la ko léegi ndax simplement dañoo bëggoon a exercer benn droit boo xam ne constitution wu Sénégal moo leen ko may constitution moo leen ko may constitution moo suut ñëpp ci réew moo leen ko may ñu ne ko ñu leen doo ko exercer léegi sénégalais yooyu buñ dee toog di ay sénégalais yoo xam ne ñii ay boroomi njaboot lañ ñii ay soutien de famille lañ ñii seeni parents ñoom lañ yaakaar pour génn ci ndóol bu ñu nekk. parce que réew mi ndóol dafay bari. sénégalais yooyu buñ demee buñ demee di dem ba mu jàgg dañuy toog bu jàgg de manière peut-être inconsciente wala euh, euh, euh, question wu survie lay doon sénégalais yooyu ne ci biir réew mën nañ toog bu jàgg ñu ne écoutez ñun on a un projet bu ñuy défendre boo xam ne gëm nañ ne bis bu sottee. suñu réew mi dina dina mel ne neen mais est-ce que dañuy continuer di génn ñuy faat comme ni ñuy faate ay weñ Sénégalais yi mën nañ dem jàgg ñu ne il faut ñu changer stratégie il faut ñu xeexe neneen te foofu defe naa moo tax réew mi léegi manifester jafe fi mhm. beneen bi mooy manifestation boo demandé ak ci tur boo ko mënti demandé léegi ñu interdire ko mhm. ku weer di nga laaj waa F24 li préfet yi di interdire préfet yi dem nañ ba match nawetaan sax dañ koy interdire match nawetaan dañ koy lu kenn mësul gis ci réew mi match nawetaan un préfet wala un sous préfet taxaw di interdire. Pierre ma les dates. mais mais il a <laughs> raison c'est pas une impression c'est la vérité. tu on change les dates euh, c'est les mêmes euh, avis d'interdiction moom mooy génn tous les jours. alors su ñu demee ba tollu foofu nga xam ne F24 du manifester euh, Pastef du manifester keneen du manifester mieux wala pire. Mhm. li gën a doy waar mooy. permanence parti sax dem na ba parti bu bëgg a réunion sa permanence ñu laal du fi amee li gën a banaal ci démocratie encore une fois mooy woo presse bi ñu ñëw taxaw nga xam ne bu ñu neexoon léegi woo journaliste ñu ñëw taxaw fii ñu ne Moustapha Diop moo jiite parti parti tel day def déclaration ñu dem ba ñu leen koy xañ ci réew mi mais les Sénégalais de la diaspora ils regardent sax mm-hmm. bis bu nekk dañ koy gis parce que li xew ci réew mi dara umb leen ci xam nañ ko bu baax a a baax alors loolu bu demee ba ba toll foofu préfet yi di interdire nu mu leen neexee même les hommes politiques yu génn bëgg a demee seen i activité ñu yónnee police ne arrêté leen leen bu ñu tollee foofu les sénégalais de la diaspora mais dañuy toog bu yàgg ñu ne mais comment fair pour se faire entendre puisque ñun réew mi ñu dëkk képp kenn du fa manifester. parti bi ñu bokk ci ñoom ñëpp ñëpp ñoom Pastef la ñu bokk parti bi ñu bokk dissoudre nañ ko amatul droit def benn activité mais il vont guetter la plus petite moo tax bi Guy Marius Sagna demee Espagne Italie jëm France ñu topp ko di manifester te Séné da nga tu as ni c' une manifestation à Colobane parce que sénégalais yu bare bëri ngay gis dans les rues de Madrid ñuy manifester. Mm-hmm. mais l'occasion qui était vraiment belle pour ñoom et ils n'ont pas voulu rater mooy les sénégalais de la diaspora mooy ñu wax leen ne Macky Sall day ñëw Amérique. su ñu leen waxee ne Macky Sall day ñëw Amérique la réflexion elle est simple jëlul chercher midi à 14h ils de lui faire entendre li nga xam ne bëgg ko dégg Sénégal. Mhm. et c'est ce qu'ils ont fait. et malheureusement Moustapha est-ce que tey jii. Mhm. loolu noonu li ñu def li mhm. mu nekk image bu nga xamante ni mu ngi tas partout dans le monde. rawatina fa mu tasee. te on se souvient euh, fan yee ñu génn ñu ngi doon wax ne que Emmanuel Macron ñu respecté naan euh, le président Macky Sall na teg troisième mandat ci suuf ndax booba mun nañ ko sax aider à que mu bokk ci instance internationale yi mhm. euh, tey image yooyu ñu wone vidéo yooyu ñu projeté ñaawtef yooyu ñu def fësal ci nguuru Macky Sall ce que du ko topp quelque fois fekkente ne bëgg na am prix wala tooguwaay ci communauté internationale bi gis nga foofu la Ablaye Wade à mon avis mëne ñi jiite réew mi actuellement Abdoulaye Wade mën nga ko reprocher lu la neex nag def na lu ne ci réew mi lu ne mais c' kenn mënu reprocher Abdoulaye Wade ne c' est pas un démocrate Ousmane dafa wax benn jour ne Abdoulaye Wade réfléchit en démocrate mais agit en monarque mais la vérité c' est que Wade bi mu jiitee bi jiitee Sénégal mais ñëpp xam nañu wax dëgg yàlla c' est moo jiite Sénégal tout à fait lu nekk dégg na ko fii ci réew mi Ablaye Wade Aïcha Diakhaté gars yi daan nañ manifester dem place de l'Obélisque jël keesum néew yóbbaale ko fa naan suuli leen ko góor gi dee na ñi ko doon def kenn demu ci kaso ñi ngi dox seen soxla fii ay ku ko defoon Macky Sall mm-hmm. Ablaye Wade gars yi daan nañ manifester Omar Faye bu leeral askan wi nekk chroniqueur ci seen TV gii bu daan manifester fii ci Colobane contre le troisième mandat xam nga bu daan ñëw lu muy yor mm-hmm. ab euh, nu ñu koy waxee sax euh, mallette mallette lay yem xam nga mallette boobu lu doon tekki xaalis bi lay Wade jëloon may ko représentant wu FMI bi nekkoon Dakar ñu ko doon woowee Alex Sigura may ko quatre vingt di millions de francs CFA xaw affaire bi siiw. Mhm. Omar Faye mii nekk. Euh, <laughs> leeral askan wi loola daan yenu di ko fa andi. <laughs> Ablaye Wade xola jàpp ci kenn. Mhm. caat bu yaadaamaar taxaw na fii ci place de l'Obélisque ñoom Ousmane Tanor Dieng Moustapha Niasse ak Macky Sall ñoom ñëpp taxaw. Mhm. mu wax wax ju ñaaw Ablaye Wade mag mu toll ne Ablaye Wade mu traité ko de menteur wax wax ji ni mu ko wax ci wolof sax mënu du duma ko wax. Mhm. gars yi jàpp caat yóbbu ko commissariat central. te ko fa garde à vue garde à vue bi jeex ñu bëgg ko déférer au parquet le procureur de l'époque Ousmane Diagne ne buñ ko fi déférer. gaa yi procureur tey. gars yi libéré caat mu ñibbi këram. Alioune bu m jàpp nañ ko fii téye ko garde à vue. ba garde à vue bi jeexee kenn defaree dañ ko bàyyi mu ñibbi. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. te kenn daawu ci jàpp kenn. Ablaye Wade nguuram mosuma gis wala su amee aussi nañ ma ko wax parce que ça mën am ma bañ koo koo yëg wala sama xel fàtte ko mais daaw ma dégg en tout cas te man boobu reporter laa dem sur le terrain. Mhm. mais daaw ma dégg ci nguuru Ablaye Wade ñu ne jàpp nañ diw parce que dafa def benn post ci Facebook. Mhm. jàpp nañ diw parce que da doon live jàpp nañ diw parce que parce que parce que parce wax nañ ko fi le 23 2011 sénégalais yi dañ koy fàtte wala boog ñun presse bi duñ ko fàtte lu bari mais xam nga 23 juin 2011 Ablaye Wade ñaari manifestation la la autorisé 23 juin kenn interdirul manifestation bi amoon assemblée dañ ne dañuy autorisé waa CAP 21 mooy ñi ànd ak Ablaye Wade ñoom Farba Senghor ne woon dañuy manifester autorisé waa M23 ku nekk manifester ñu def un peu comme li am New York. ñii taxaw fële di wax ne Ablaye Wade d' accord nañ ñii taxaw fële d' le 23 juin la manifestation était autorisée loolu ma ne Wade bu pertoon le pou bu pertoon le pouvoir am âge bi Macky Sall amoon à l' époque Wade mën naa am une carrière internationale su fekkee bëgg na ko. tout à fait dem nañ di ko jox prix à Paris je crois le prix UNESCO de la paix xaw ma xaw ma à Paris je pense je ne sais plus à Paris en tout cas opposants yi jël fii avion ñoo amaat dans dem foofu manifester dara fekku leen ci. bañ paree dañoo ñibbisi waat ci réew mi am na si ñoo xam ne ñoo fi jiitu Abdoulaye Wade bañ ñëwee kenn woowu ci kenn ça il faut le rappeler. parce que méritu Abdoulaye Wade mais boo gisee ma koy rappeler c'est parce que personne n'ose le faire. personne les sénégalais yi manifesté à New York mais na leen leer de kuñ ci xàmmee boo wàccee ci réew mi fii ak décembre kaso ko jëm. du fii leen jub màggalu Touba ñu ne am na benn liste xaw ma qu'est-ce que ça vaut nag parce que vérifié wu ma ko am na benn liste bu nekk ci aéroport nee nañ am sénégalais yi ku ci wàcc ñu jàpp la ba am na sénégalais yoo xam ne màggal si wuñ loolu dégg nga ko déggoo donc tout cela réuni fait que tey jii Macky Sall pour mu prétendre à une carrière internationale sax du yomb mm-hmm. pire ce qui s'est passé comme ni nga ko waxee Aïcha loolu mooy dëgg ces images là qui ont fait le tour du monde avant même ñu koy projeté à New mm-hmm. parce que bul fàtte ne France 24 euh, le monde ak ñeneen ak ñeneen liggéey nañ ci image yu ñu fi image yu nerveux yooyu yooyu yëpp génn foofu ñu gis ko mais ëllëg du ma ne Macky Sall mënul am prétention jiite Nations Unies man na ko bu ko bu ko bu ko amee sénégalais yi dañ koy enfin man en tout cas <laughs> lu may neex lay doon parce que sénégalais nekk si niveau boobu duma man mën loolu applaudir mais tey pour mu am ko gëm naa ne lu jafe lay doon à cause de ce qui s'est passé. nan la ñuy def ba yegg si fii ci niveau bii parce que sénégalais yi ma gis. démb mhm. man New York. am nañu haine boo xam ne nii à l'endroit du pas du président mais de mhm. Macky Sall. Mhm. man je dis que lii c'est du jamais sa président réew. nga am bii haine ci moom man daf ma jaaxal. mais moo tax ma jàpp ne le président moom ci boppam moo waroon a moo moo xool réew mi xool waa réew mi. xam ne sa sentiment de haine laa ngay tudd ba mu juddoo ci réew mi yàgg na lu démb. Mm-hmm. Aïcha ñun man je donne l'exemple des journalistes que nous sommes. Mm-hmm. ñun duñu ay politiciens faru ñu ci parti. amuñu benn prétention boo liggéey ñu falu ak ku mënti nekk président. je dis souvent que ni j'aime beaucoup les comédiens burkinabé benn comédien burkinabé laa mas seetaan mu ne que truc ou machin soit président je resterai je resterai pauvre. Mm-hmm. mais des gens comme man je dis souvent que que truc ou machin soit président ils resteront certainement journalistes. quelques rares ñu ñoo ci changé dem defi leneen. mais combien de fois nga gis des journalistes yoo xam ne defuñu lu dul seen liggéey xëy na d'accord nga ak ñoom xëy na d'accord ak ñoom. mais ñu leen di menacer de mort. fii ci kër gi bu la neexee nga commencé wàññi combien de journalistes de Walfadjri ont reçu des menaces de mort. beaucoup ont reçu des insultes. beaucoup am na ñoo xam ne da leen def ci groupe de WhatsApp ne leen dee leen ko ñu lay di la saaga di la menacer de wala déet. comme ah oui combien euh, cette cette haine là ngay ngay wax ba mu juddoo ci réew mi dafa yàgg. maam Birame Wathie euh, Pape Makhtar Diallo <laughs> je le rappelle très souvent. Mm-hmm. seen yoon newul ci ay partie politique milité wuñu mais fii lañ dem fekke benn ndaje wu xaw ma ban M23 xaw ma F24 xaw ma wàññeeku di di wañ di bi ñu agressé leen. mais loolu bu dul haine lan moo ko expliqué ñun ñii muy yow di man da ngay toog fii di di di di di di waxtaan sa waxtaan. nit sa mbokk woola wala keneen ne la gis gis gis naa diw di la saaga nangam ak nangam yoo xam ne yëgoo tinoo ñoo xam ne mosoo toog ak ñoom cinq minutes xamuñu la donc cette haine là ngay bi mu juddoo ci réew yàgg na comment peux-tu comprendre dugg ci live bi la saaga mais voilà yow pour pour pour pour expliquer haine boobu ngay wax mais sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk New York walla ñu nekk feneen ci àdduna même sénégalais yi nekk ci biir réew mi ay soo leen nee am na benn waaye bu tudd Bassirou Diomaye fay di liggéeyee impôt et domaine dañ koo tëj accuser ko loo xam ne ci wàllu correctionnel la jëm maanaam dañ instruction la ñu après ñu yóbbu ko tribunal correctionnel mu àtte ko ñu ne la wàllu correctionnel boobu buñ ko ci tëjee maanaam nangami weer dafa naa juróom-benn weer dañ ko war a libérer mhm. wala ñu àtte ko hmm? mhm. Fadilou Keita keneen beneen exemple ñooñu ñu téye leen ba àpp ba jege ñu xam ne léegi libéré leen jot ñu tegaat ñoom yeneen charge lan moo ko expliqué lan dégg naa keroog euh, sama grand Momar Diong di ko wax Awa Diop Ndiaye mu ne mu ne on est là dans le domaine de la perception. Mm-hmm. la perception bi nga xam ne moom la nit ñi di am ci seen justice ni muy doxe perception boobu baaxul tey soo dégloo le discours politique Colin Powell moo doon bind ne. dans les dans les médias le discours est devenu plus destructeur que constructif. Mhm. mais loolu mu doon bind ci Amérique à l'époque loolu moo am actuellement suñu réew mi. suñu réew mi soo déggee acteur politiques yi di wax en tout cas ñëpp ci ñoom du ñu wax pour proposer lu jëmale réew mi kanam du ñu wax pour def lu dalal réew mi dañuy wax pour gaañ pour gaañ exemple le principal leader de l'opposition au Sénégal. mais dañ ko accusé de viol de menace de mort. pendant ay weer pendant ay weer yu bëree bëree bëri les responsables du parti au pouvoir ñenn ñenn li nga ci mën a compter du mat juróom mais tout le rest nekk dans sa vie privée di ko saax-saaxee tous les jours di wax jabaram di wax yaayam di wax ay mbokkam di wax vie di wax bàyyiwuñ dara mais loolu <laughs> budul en lan lay doon fii ngay gis des gens yoo xam ne man ak ñoom ñoo yam dong tekkiwuñ dara ci réew mi. Mhm. goruñu fi yettuñu fi sanc ñu fi dëkk liggéeyuñu amuñu dara di def ay live tous les jours tous les jours mais di saaga ay gor yu set wecc ñu toog di seetaan mais donc li karma bi Pape Alé doon wax te ma ko tuddoon tudd sànq. Mhm. mooy ku nekk sa bés dina ñëw dañoo toll foo xam ne. les sénégalais de la diaspora ñoom xam nañ réew yi nekk xam nañ ne réewee nekk kenn du fa jàpp nit parce que da ngaa xëpp nit ndox. Mhm. kenn du fa jàpp nit parce que da ngaa génn manifester moo tax man j'ai le sentiment que dañoo bëgg a fayul ñu ne ci réew mi donc et puis ñu ne ci réew mi sax ñu ngi continuer ba tey di dund guuta mhm. même bu fekkente ne euh, moom Ousmane Sonko neutralisé nañu ko comme mhm. ñu koy waxee parce que c'est le mot qu'on peut utiliser dañ ko neutraliser mhm. alors ñi des ci euh, langue politique bi ñoom fas yéene peut-être bañ a nekk fi di am yëngu-yëngal peut-être bañu bañu jàpp ndax ñu bëri nee nañu ñi bokk ci